soppiku ba mu nekkee madina di woote premier état islamique sosu foofa ca madina bi état ba demee ba am doole ba aljaziratul arabiya daanaka la ca ëpp dugg ci lislaam ci la commencé ginnaaw sulxul xudaybiya di woo àddina bi yépp ci la yónnee woon leetaram yooyu jëm ci Kisra ca la yónnee woon leetar ba mu yónnee woon jëm ci Hiraql ca la yónnee woon leetar jëm ci mu Muqawqis eh, Hiraql doon eh, César jamono yooyu mooy Qaysar ca Russie wala ca Ruum yónnee ca kisraa nga xam ni moo nekkoon empereur bu Perse yónnee ca mu Muqawqis xam ni moo nekkoon buuru copte yi ca Égypte yónnee ca gox goxaan yi nga xam ni dañu amoon ay buur comme manazira yeeg xasaasina yi yónnee ca yaman fépp rekk mu yaatal woote ba woote ba jëm fa loola yépp ngir yeggale woote bi fa ko sunu borom nammee te mooy nit ñépp ba étape boobu jeexee ca étape boobu la nekk nekk ci ba keroog ko sunu boroom di moom saxaaba yi continuer woote ba ba yeggale ko ba fi mu yegg nii tey kon bu ñu waxee ni lislaam diine la joo xam ni almuridiya ab tarixa la boo xam ni léppam ci diine jooju la askanu ki nga xam ni mooy boroom tariqa bi di cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu moom it kadalika léppam da ko wéeroon ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam doonoon ab mujaddid buñ ne la mujaddid mooy koo xam ne dafa ñëw ngir yeesal diine te nag ci xel ku yeesalub mbir la nga yeesal dangay tënku ca loola nga yeesal waaye la ca yàqu woon nga jagalaat ko la ca nëxoon nga segg ko la ca jàddoon yoon nga tegaat ko ci kawraay bi noona la ñu yeesale moo tax may wax ni sëñ Tuubaa sosul dara waaye dafa ñëw fekk lislaam nefi am yu ci yàqu woon mu ñëw yeesalaat ko yeesalkat boobu nag yoon wi nga xam ni moom la tracé jàngale ko di almuridiya boo ko gëstoo càmbar ko ba ca biir da nga gis ni ak tatbiq la application la ci universalité bu l'islam ndax yoon wi la ko tax a jóg mooy yeesal l'islam yaa xam ci wàllu pas-pas la wala ci wàllu jëf la walla ci wàllu jikko la kon aalamiyatul islaam muridiya tatbiqun amaliyun li aalamiyatil islaam application la boo xam ni e, universalité bu lislaam moom la ñëw ngir jëmmal ko ba ñépp mën cee teg seen bët du lu bees nag ci jamono la siyama ci alaalamul islaami ay woote yu bari sosu fi ay woote yu bari am fi ku ci nekk wala wu ca ne ci woote yooyu doon wootey islaax ya wootey yéwénal wootey réforme wootey joyanti yoo xam ni dafa joyoon ci lu aju ci diine ji te kuy joyanti wala nga yeesal la shakka ni loola nga yeesal tànk yamu jaaroon foofa nga war a teg sab woote kon woote yi fi jaar bari nañu la chak waaye woote yi sëriñ Touba di almuridiya dafa am ay xusuusiyaat ay jagle yoo xam ni daanaka doo ko gis ci yeneen woote yi wala néew na lool nga fekk ko ci yeneen yi woote ndax woote la woo xam ni lislaam ba muy jóg ca la mu jóge woon mooy am njàngale wote wi it cag départam dale ko ca ndaw ña cim njàngale la tàmbale ya ayuha sibyaanu la tastaxilu an ilhuda wa bilulum istaxilu yéen ndaw ñi bu leen wan gannaaw njub waaye jox leen yitte li nga xam ni mooy jàng ak xamlu kon foofa la lislaam tàmbale woon ci iqra bismi rabbika alladi xalaq yoon wi ñëw teg mboolem ay ponkam ci ponk yi nga xam ni moom la lislaam taxawaloon ci jàng waaye ci jëf waaye it ci jaamu yàlla jàng pour xam waaye jaamu yàlla ngir ñu dala ko digal ngir mën caa amee texe waaye it liggéey ngir mën a jariñu lislaam ca yooya la tënkoo woon yoon wi it universalité tax na lépp yoon wi ci ñett yooye lañ ko tënk am na mag yu koy tënke ci ne njàngaley sëriñ Tuuba ñett la woon mooy àll ba ak àlluwa ak allahu akbar nangoo jàng eh, nangoo liggéey ak nangoo jaamu yàlla yoon wi yépp looloo ko tënk te loola mooy li tënk lislaam it loola mooy li tënk lislaam sëñ bi nag bi mu ñëwee taxawal yoon wi benn universalité bu lislaam da koo jëmmal ci kanamam jëmmal ko ci jëfam xam ni kii kat nga xam ni moom lay roy ci moom mu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy ñëw def fi fekk ay diine waaye diine yooya fi yi mu fi fekk ndaxam sax nag yàllaa ko wàcce woon waaye ay coppali dugg na ci duggin goo xam ni yegg na sax ba soppi turu diine ba ca boppam yahud yi tudde seen maam seen diine nasaraan yi tudde seen maam dëkk ba isaa yaro muy naasira ñu naan ko nasaret kon diine yooyu am na ay coppaliku yu ci duggoon coppaliku yoo xam ni yegg na ba ca turu diine ya yonent bi nag yàlla jox ko diine jamu joxoon ñe ko jiitu woon waaye aar diine ji ba soppaliku duggul ci turu diine wi huwa alladhi sammaakum almuslimina min qabl yàllaa leen tudde woon ay muslimuun moo leen tudde woon ay way jébblukat booba yonent bi ñëwagul nee nañ depuis ca jamonoy ibrahim la kon diine jooju nga xam ni moom la yàlla jox yonent bi nga xam ni turu turi ay maamam feeñu ci ci turu diine jë turi dëkkam turu dëkkam feeñul ci turu diine ja turam moom feeñul ci turu diine ja sëñ bi tàmbalee roy ci universalité lislaam ci wàll woowu ngir bëgg muridiya it yoonam wiit doon yoon wu universel <coughs> loolu tax na mu yoonam wii mu tudde ko tur woo xam ni Ah, moom feeñu ci dëkkam feeñu ci askanam feeñu ci naka noonu lenn lu aju ci moom feeñul ci turu yoon wi tudde ko al muridiya muridiya doon koo xam ne ku ci nekk man nga ci ku ci nekk gis nga ci sa bopp te ku ci nekk xaj nga ci tudde yoon wi al muridiya loola doon genn tatbiq amali ci jëmmal universalité bu muridiya tabaan li aalamiyati l islam ndax muridiya ca la mu dugg ca la mu bokk la ko uuf loola lu universel la muridiya di liggéey ci lu universel loola kon muridiya it dafa war a universel kon nga xool li ko sunu borom yënkiwal ak xerañte gi mu am ci tànn turu yoon wi ci boppam muy muridiya lépp rek ngir junj universalité gi nekk gi gi yoon wi war a tegu ci kawam beneen bi boo seetloo li nga xam ni mooy wootey yonent bi sallallahu alayhi wax nañu fi ne bu daa woote da daa wootee ci tur yoo xam ni ñépp dañu cay dugg yaa ayyuhan naasu la daa wax yaa ayyuhal ladina amanu di melokaanu lenn ci nit ñooñu melokaan woo xam ni shaa'i la dara xaddu ko amul lu ko tënk eh, di woote ci yaa ayyuhal ladina kafaru yaa ayyuhal kaafiruun kon ci ay awsaaf la daan wootee awsaaf yoo xam ne day law di law ba faw ndax ñooña ñoo soxaloon ak wooteem ndax ñooña rek ñooy ñi nekk ci àddina bi ndax àddina bi imma nga nekkub mu'min wala nga nekkub kaafir kon noona la daa wootee moom yonente bi sallallahu alayhi wa nga xool sëñ bi ci mbindam mu roy lislaam ak yonent bi ci woote yinam googu ndax manon na wote wote wo xamni ab dëkk rek ñoo cay gis seen bop wala ay talibem rek cay gis seen bop wala ñi askano ci mom rek cay gis seen bop waye ay wotem da fay top alamiyatul muridiya ndax kenn soxalu ko luddul jëmmi nite ci bopam ben ya ayyuha sibyan la tashtaghilu anil huda wa bil ulum ishtaghilu nga gis ni xale yi ndaw ñi lay waxal ba kérok aduna di tukki ndaw yépp dañuy dugg ci xitaab googu bépp kuy ndaw ci aduna ba kérok aduna di tudd di tukki dugg nga ci xitaab boobu muy wax ak waxam baane ya ma'shara ash-shabab in khiftum khajal faqaddimu taalluman ala amal nga gis wote boobu it jeunesse bi lay waxal képp ku doon ku képp ku kuy jeune ci aduna kérok ba muy wootee di xaata banteeg ñoom ba àdduna di tukki dugg nga ci xitaab googu loola yépp ngir lan ngir wane rekk ni yoon wi ca anam gañ ko tëggee ca anam gañ ko tënkee lépp rek dafay doon tabaan lil islaam ci wàllu tur waaye ci wàllu xaata bante donte tur nag sax ak xaata bante mën na bañ a compliqué lool ci bu jëloon beneen forme bi comme ni ñu koy fekke feneen waaye nag ngir bëgg a jëmmal wooteem wi ba du génn ci lenn ci universalité bu lislaam loola misaal la ci sëñ bi yemul ci loolu waaye wéy na ci bëgg a wone universalité bu lislaam tax na népp noo xam ni noona la yonent bi daan gisee surtout gisin ci melokaanam yu ñu koy duppe moom mu doon la ko gënaloon moom yonent bi ndax am nay melokaan yu bari melokaan yoo xam ni bu ca ne day topp lenn ci turam yooya ñu naan ñaar téeméeri tur wala ñaar téeméeri melokaan waaye am na wa ko ca gënaloon ca yooya yépp mooy nga koy melal ne ko jaamub yàlla nga nga koy melal ne ko jaamub yàlla nga yonent bi melokaan woowoo ko gënaloon ci melokaan yépp ndaxam rasuul la ab yonn ku ñu yónni la nabi la ab yonent ku ñu solo la am na yeneen saaf yu rëy lool waaye was fu melokaan wa ko ca gënaloon mooy melokaanub ni ab jaamub yàlla la dafa mel ni sunu boroom sax tamit nag bu masaan daan melal yonent bi ci jamono ju yonent bi daa yegg ci taxawaay wu kenn musta yegg jaam boobu la koy tudde bu boobaa eh, isra wal miraaj ci isra ba ko yàlla eh, di di nettali تي القران اب جام لاكو ملالي فوفو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى يالا سلنا مومي رنيان مومي رنيان اب جامم جام لاكو تودي فوفو معراج بي بو خوله باموي واخ معراج بي على القول تشيني ثم دنا فتدلا ووتي با تي ام ني في تي ادنا لا ني ca ca ca kaw la ca sidratul muntaha waaye ci ñuy wax ni ca sidratul muntaha la thumma dana fa tadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa yàlla jege yonent yonent bi jege yàlla yàlla dal di wax yu ci jaamam ba donte yonent fa mu yegg kenn musu faa yegg waaye nag yàlla wasfe ko foofu melal ko foofoo ni ab jaam la li tax yonent bi tànnal boppam melokaanub jaam mu gënal ko mooy ni fu mu mas a tolloo ci dayooy tedde nga sunu boroom jaam la ko fa daa tudde ndax ak yonent ndax jaam mooy jëfam moom yonent bi mooy mooy farlu farluy boppam ba yegg ila muntaha al ubudiya wa ila xaqiqatiha yegg ci dayooy jaamu yegg ci xaqiqa yi doonub njaam donte nag ci ñun nabiyu gaa gën a rëy rasuulu ga moo gën a rëy waaye nag ñaar yooyu du lu ñuy fàggu munoo góorlu ba tax nga nekkub yonent munoo góorgóorlu ba tax yàlla yónni la kon nomination la sunu borom moo ko ko tànnal def ko ko waaye moom la mu def ba sañ koo ndamoo mooy ni ab jaam la moo tax mu daan ndamoo ni ab jaam la mu daan ndamoo ni ab jaam la musuta ndamoo ni ab yonent la fa mu ko masa ndamoo sax lu mel noonu nee nañ suñu borom da ko corriger ci saasa ñaari yoon yoo xam ni ndamoo wala waxe na no xamni dafa melni da fay ndamu cig yonentaam suñ borom corrigé ko ci ba muy wax ni ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib amna borom xam-xam yu ne ci la ko yàlla corrigé ci ne ko wama ramayta id ramayta walakin allah rama li du sandam man ma sànni man yàlla du yow du sandam ndam yow yaay yonent yaay do doomu abdul muttalib du lolo tax li am ak kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum Eh, eh, sajju muhammadan bu ko waxoon mu tane waaye ba mu nee nabiyahum suñ borom dafa àddu corrigé ko lay laka min al amri shay moo moo ci dara kon eh, nubuwatoom ak risalatoom du ndamam moom la doonoon ndamam mooy ubudiyatoom nangu gi mu nangu doon jaamu bi yàlla nga gis sëriñ Tuubaa ci la muy ndamoo wàllu xutbaaniya ndéem wax na ko téeréem waaye néew na nga dégg mu tudd yu mel noonu comme nañ koy gisee ci ñeneen waaye la muy bàkkoo ci yoo xam ni mën nga ci génne lu toll ci junni misaal ci ay téeréem mooy ni man ab jaamub yàlla la liggéeykatub yonent bi laa sallallahu alayhi wa sallam mu firndeel loolu ci wane ni loola mooy mébétam waaye it ci wane ni loola rekk la bëgg ay bisam ci kaw suuf ak i weeram seedeel ko ko bis penc نذور كوني عبد ذي العرش وحده خديما لخير الخلق وهو نذير سما مبت سما نسر موي رك نكوب جام جام رك لا بغا نك nekk يالا waye waaye it weer wu ma mas def ci aduna shuhuri wa ayami gadan li shawahid bi anni ya abdullah wa huwa shahir wer wuma ma mas def ci aduna bis buma ma mas def ci aduna àdduna ëllëg ñu ma sedel ni jaamu yàlla la won ndamowul dara lu dul ni jaamub yàlla la nga gis foofa it na mu lëkkalee xaalam wasfu ba yonent bi gënoon na bëggal boppam en tant que yonent bi nga xam ni mooy yonent bi universel ci gën a universel ci yonent yi mooy yonent bi ñu jox diine ju universel muy lislaam na mu doon bàkke boppam ci ni jaamub yàlla la sëriñ tuubaa ñëw dugal mbiram ci biir mbir mooma mooy yoonam wii nga xam ni it mën nañu ne suuratun tibqal asli ca loola yonent bi doon woote jéem na ba lii jëmmi yoon wi ak moom mi taxawal yoon wi du ñu génn universalité gi benn yoon moo tax la yonent bi daan bàkkoo ci ni jaamub yàlla laa sëriñ tuubaay di bàkkoo ni man it jaamub yàlla laa ngir ñu xam ni ndax bu fekkee ni nubuwaay yonent bi wala risaalaam munoo ko dàq dàq ko ba jàpp ko ba ba ba doon ko Serigne Touba it am nay may la shakka may yoo xam ni amaana lu du tax nga yegg fa mu yeggoon waaye nag la nga mën a bokk ak moom ci biir mission moom Serigne Touba mooy ni ubudiya googu terewuñ ko kenn yii kenn jaar ci góor-góorlu ba yegg kon moo tax ubudiya googu la daan présenté woo saasu ne kon nga gis foofu bëgg a ngi ci goo xam ne day junj it universalité ak muridiya guy wane ni sëriñ bi kat lii woote bii du woote boo xam ni da ko tënk ci gox walla tënkal ko aw xeet waaye woote la woo xam ni fu lislaam di yegg woote bi am na mérite tamit pour yegg fa woote bi am na eh, xayawiya gu ci nekk ak dund gu ci nekk goo xam ni mën na yegg foofa lislaam yegg lii firndeel loolu bari na bokk na ci euh, ñi nga xam ni ñoo askanoo ci moom fu ñu ne ci àdduna ñu nga fay def ay kuréel yoo xam ni kenn mosu leen dégg fenn ne yoon wii kat seen kuréel wa nekk ca réew sàngam am nañoo réew moomu problème sàngam na am ay benn benn danañ ko am waaye kuréel wa ca boppam mosuñoo dem fenn ci menn réew ñu xatal leen fa mosuñoo am problème ak benn réew loola day wane ni xayawiya eh, yi nga xam ni moo nekk ci muridiya yi E, ba nga xam ni saalihatun li kulli zamanin wa makaan fu ne rek xaj na fa amul fenn foo xam ni dañ ne ko fii doo mën nañu ne dëppoowul ak la nekk foofa ba tey sëñ bi ci tëgg gi mu tëgg boppam ak mbiram ci mu lëkkaloo ak universalité bu l'islaam bokk na ci ne yonente yi fi jaar ku ci ne sunu boroom daan na la jox ay xawaari ay mujizaat yonent bi it yàlla jox ko ay mujizaat yu bari waaye mujiza ga ko ca gënal mujiza rëy kéemaan ga ca gën a yaatu mooy kéemaanu alquran mooy alxuraan jëmmi alxuraan ji nga xam ni yàlla defiyee na ñépp rek ci ñu indi kenn mësu koo mën a indi ba tey moo gënoon yéem yonent bi moo gënoon a rëy ci yonent bi ndax mooy mujiza gi sax ba faw ba tey alquran a ngi fi ba tey bis bu nekk ñu ngi ci iktishaaf ay mujizaat yoo xam ni ña ñu jiitu woon xamuñu ko woon Sëriñ Tuubaa it yàlla jox ko ay xawaariq aadaat ay karamaat yu bari yu baree baree bari da ko fekk ci alminahul miskiyaaki ca irwaa un nadiim ak تمنن الباخ الخديم اك تي نفحات المسكيه دانكو فا فك واي يوي ييب دا فا ملني يوكو نيورول لا وون لن رك كو نيور تي موي ام بندم بند بي رك كو تي نيور لي تي ديس ييب دا ملني جوخوكو وون ييتي waye lak mu joxone yitte ci karamat yoyu moy mbindam karamati khattu yadi bil mustafa al muayyadi mooy karaama gi gën a rëy ca gañu ko jox mu doon ay bind doon ay wax ndax mujizaat ya yonent bi defoon ña ko fekke fekke nañ ko nettali ñu ko ñu dégg ko nuqaat yi ñi nga xam ne ñooy nuqaatul xadis ci yoo xam ne nee wérul yii nee nañu wér Serigne Touba karamaat yañ koy askane yi it am ci yoo xam ne nee wérul am ci yoo xam ne nee nañu saxal nañ ko ay téere waaye ya nga xam ni dafay sax ba faw ba kenn mënu koo weddi ci mujisaatu yonent bi mooy alquran la nga xam ni mooy saxit ba faw ba kenn mënu koo weddi ci karaamaati Serigne Touba mooy xasaayidam yi karaamati xattu yati ndax damay wax ni lu mu yëkkati yenn saa yi mu yëkkati yow mi xam way dana la jaaxal kii ni mu yëkkatee nan la mën a daanele lii waaye bu ko daanelee rek sa xol sedd mu yomb lool loola bokk ci bokk ci ay karaamaatam te dinaay faral di waxit ni amut lu mu bind loo xam ni danga nga ne aha kay baax na waaye bu ko defee woon nii mu gën a baax na mu binde mooy na mu gën a baaxe loolu moom ku xami mbindam loola war nga ko caa war nga ko caa seetlu war nga ko caa xam kon karaama ga gën a rëy ci ay karaamaatam mooy xattu yadi eh, mbindum loxoom mooy ay taalifam ci ay xasaayidam mooy li gën a rëy ci li ko sunu boroom jox eh, loola nag Eh, ay firndeem bari na la koy firndeel bari na eh, mooy nii fan yi rek ñu ngi ñu ngi ñu ngi génne bayit bu ma ko gisee dama cee xaw a dafa njëlbeen gi avant ma koy ma koy xisaab da ay ree daf ma jàpp ma ne ah, gars yi dañoo xër rek waaye ba ma ko xisaabee donte gis naa ci tuuti ci wàllu xisaab xalal bu ci am waaye bu ñu ko bu ñu ko jaaralee ci ci yenn ñi ko ci yenn aadaat yi day dëppook la wax Eh, ilal muntaha ilal mu ko tuddee sax wa ilal mun wajjah lil muntaha lil muntaha wajjahtu fii ndakaaru xam nga loolu lil muntaha lil muntaha wajjahtu fii ndakaaru nga xisaab ko mu jox la mille cent 1441 dajeeg ren ji loolu dafa yéeme xam nga dafay doon yoo xam ni mënut a doon hasard rek pour doon hasard noonu damay li ca ca ca septembre waa jooju zandaan yi ma génne woon loola ca alxuraan ak loo taxafus taxafus daanaka doo ko mën a weddi yum lii lu mel noonu la 1441 la ñu lil muntaxa wajjahtu fii ndakaaru ñëw dëgg la jubluwu ci sëriñ muntaxa ala kulli xaal waaye ci ci la yax ba wane waaye nag ñoom seeni wax day am ay ishaaraat yoo xam du ñu ca mën a wax rek lu dul kalaama lawliyaahi lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum loolu rek lañ cay mën a wax waaye am na ak yéeme goo xam ni ku ko taamul dana la jaaxal kon loola yépp day dugg ci karamaat yi ko suñu borom joxoon ci mbindam ak ay junj e, universalité muridiyya it te moom la ñuy tënkee mooy nii li ñu seetlu ci turuq yi fi mas a jaar ku ci ne daanaka dina mel ni dafa am ay ay ay code yooyu wutal saw yoon pour rek ku ci dugg nga tënk ko nga tënk ko ba du génn yooya gis nañ ko fi ci ay turuq yu baree bari boo demee ci naqshabandiyee da nga ci leen fekk ay shurut ci kuy dugg ak te ku dugg yit ay teengal yu metti ci wane ni waroo génn da nga ko fekk ci la buraylawiya dang ko fekk ci rifaaxiya yi dang ko fekk ci badawiya yi yu bari dang leen fekk ci tarixa bi dañ ko def dañ ko dañ ko ñek ba yow mi dugg génn dana la jafe yenn saa yi ñu ñage ko ay xoxatal boo génnee loo defati sunu borom du ko nangu yooyu yépp am na ci waaye sëñ bi bëgg a wone ni moom du taalibe moo ko ñor bu kenn doon taalibeem na ñëpp dooni taalibe rek ak koo mën a doon taalibeem doonalub xoolal ma yaatal gu toll noonu fa kullu wirdin yuridu almurida li xudrati llahi walan yaxida sawaun intama ila aljaylaani aw intama li ahmad atijani aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qatan ala sawaabi kon moom tënku la moom li ko ñor mooy nga baax ndax wooteem bi àdduna lépp a ko tax a jóg nga baax ak foo mën a baaxee rek yow nga baax rek a ko ñor nga tegu ci raay bi ak raay woo mën a jaar waaye nga yegg rek a ko ñor sëñ Touba njàngaleem ci loolu la ko tënkoon te yemut ci théoriser ko rek ci bayit yi waaye da koo jëmmaloon boo demee ci kilifa yi da nga ci fekk ñoo xam ni ñu ngi yore wir wirdu maxuus di wirdam am na ñoo xam ni wirdu tijaan ya lañ yor am na ñoo xam ni wirdu qaadir ya lañ yor am na ñoo xam ni wirdu chaadali ya lañ yor ba tey ci yoon wi mag ñi dañ ko doon mayee ñëw sëñ Moussa kaa ngi koy wax ci ci ba muy marsiya maam Cerno ca fa mu naan moo ma mayoon fa daaru wirdul qaadir ci darajaay shérif ba abdul qaadir dellu ma may musabbaatul ashri dellu ma may maxuudu waqtal asri saadatan ridan bi duuni suxti moo ma ko warloon fa daarul muxti loola yépp day wane ni señ bi tënkul kenn sëñ bi lislaam a ko ñor sëñ bi yoon wee ko ñor mu tasaaroo ndax mooy représenté lislaam sëñ bi nit ki baax ko ñor sëñ bi nit ki yegg ko ñor leneen ñoru ko luy féetewoog moom soxalu ko lu féete la ñépp féetewoog yàlla na ñëpp féetewoog yonent bi la ñëpp féetewoog alquran loola it universalité ga yegg na ci na mu soññee ci alquran soññewu ko sax ci xasaayit yi na mu soññee ci alquran soññewu ko ci wirdu almaaxuud kon ci bu ñuy tënk loola tënk yu gàtt laa laa kulli xaal waaye comme waxtu yi dañoo tënk gàttal ko foofu jërëjëf docteur Abdoul Ahad